Euh, mbooloo mi yépp ci nuyoo boobu kenn génn ko xam naa ni euh, tey moom soj jàpp na ma ak mbég ci li ma fi jot a dégg lépp ci mbiru sëriñ bi euh, fekkee jataay bii rek ñuy waxtaane sëriñ tubaa jar na lu ne sëriñ tubaa kenn la koo ko wax mu ne la dangay bokkaale ne ko koo kii nga jàpp ne moom laay méngaleek sëñ bi wala di ko nuróoleeg moom wala di ko tollooleek moom noo ma wax ne noonu lañ demee rek maa la ko gën a xam waaye damay bàyyi ba nga tudd ko ma dëggal ko waaw ndax euh, sëriñ bi mënuñoo nekk ci àddina nit jëf wax ba seytaane te nit mënta jëf wax ba yàlla loolu mënta ne te nit dana jàq joqar bi nit ne ko seytaane piir nga luy tee sëñ Tuubaa nag doon yàlla piir ci jëf ci wax ci lépp ci saayir ak ci baatin naka la demee nag moom ngay lijjanti après waaye léppam mi ngi ci biir boroomam daraam génnul boroomam boo soxoree nag da ngay defe ne eh, nit ñi jànguñu eh, tawxiit te jàng nañu ko bu wér waxuñu la ki dalewul fenn yemul fenn waxuñu la kooku dañu la ne am na jaamam boo xam ne topp na ko ba sey ci jëmmam te moom bam ko dalee topp ba léegi foo ne ma nga fa balaa sa kàddu di daanu mu weesu ko jàllaat feneen ci boroomam mooy hors série foo ne sëriñ Touba fa ne balaa sa kàddu di daanu mu jóge fa jàll feneen ci boromam ndax boromam bi muy topp moo dalewul fenn te yemul fenn te sëriñ bi jëlul benn yoon décision tàmbalee fenn ci jëfam ci boromam yem ko fenn ku mënta tële fexe ba sëñ bi dootul jaamu yàlla doo mën a fexe ba dara darajaam du yokku saa su ne fam newoon ci boroomam lam xamoon ci boroomam lam amoon ci boroomam waxtu wa nga koy waxtaane di ko yéem boo xamoon li fi jaar ci diggante bi dangay ngay tuub sax li nga doon jot a wax noonu nag màggug yàlla lay indi kennug yàlla lay indi ak kattanam ak man-manam faw nit ñi di xàmmee dangay fekk lu dul yàlla nga di ko manloo di ko defloo wala di ko waxloo loolaay bokkaale waaye fekk koo xam ne dafa giñ ne dundam ak yëngoom ak dalam ak léppam jeexal na ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga di ko fa génnee di ko yóbbu feneen loola ñàkk xam la ak ñàkk digg ak kiñaan te li sëriñ bi wax ne am na ko nim ko amee royewu ci kenn balaa maa génn sax ci ruq boobu ma nekkoon noonu mu mel ci boroomam lii nag sama yëg-yëgu bopp la yàlla al wujudun wal qidamun summa baqaa al muxaalafatul xalq al qiyaamu bin nafs al wahdaaniya yooya mooy tax am na ci moom rëy xam ni mënuta wone cofeelam ci rasuulullahi te wàccewul boppam te yàlla kenn jaralu ko mu wàccee boppam ndax dégg nga li may wax loolaa tax mu def ci boppam lu mel ni Serigne Touba ngir wan rasulullahi ni mu ko bëggee bu yonent yépp ràññee sëriñ bi ñëw boof ci wetam bu nu waxee jëfam ji mu jëf ngir jëmmi rasulullahi bu fekkoon ne ñoom ñépp dañoo toogandoog moom ci kaw ñépp dinañ wàcc xam ne kii du moroom misaal la ci diggante sëriñ yonent yi ak yonent bi ëllëg la sëriñ Serigne di wan différence bi mu am ci diggante ku tedd kii ak ñi mu bokkal aw tur ñu naan ay yonent ñi ci topp ndono lañu ay waliw lañu ak i xutbu ak i nangam sëriñ bi nag loo ne bokk na ko ci yooyu xamoo ko ndax ki ñuy waxtaane bi muy jóge senegal di dem Ndar bi muy dem Ndar di dem ci liggéeyu géej gi booba la wax ne weesu na yii waxee na ko feneen nu gën a yéeme ca Seex Isaa la ko wax ne ko ba may toll ci baa ak siin laa weesu woon li ñuy ñuy wax paliwaliw yi kon kenn xamul fu mu ne kenn xamul lu mu li wér te wóor daal mooy ku am dara ci yàlla xam nga ne moom kéemaan la xam nga bu noon baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii lil baraayaa teg ca dara dinga xam ne loola mën naa doon sëñ bi waaye aaya rek la wax mooy kéemaan la foofa la sëriñ bi ne yemut fenn bu ko kenn jéem a yemale fenn ñi ko toppoon nag te këm ko bi ñu àggee ci xam lenn ci lim doon booleetuñu ko ak lañ jàpp ne kenn mënu koo ñàkk jëfandikoo ba am dara hmm. seen jaamu yàlla ga lañ ko jëkk a jébbal jébbal ko seen ngëm yaak seen pas-pas ya nga xam ne moom la ñu waroon a doxale seen diggante ak seen borom Serigne Touba lañ ko jox. parce que xam nañ ne di fi làmbiwaat yàlla feneen ak akub yonentam coono lay indi te njariñ du ca ne. moo tax ñu jàpp lii murit boo ci dégg mu am fu mu àgg ci sëriñ bi ba tudd loolu xamal ne jariñ la toll na noonu boo ko rusee wax nag dund ko boo ko rusee wax. danga ko dundul billaahi képp ku dund sëriñ Touba foo mën a ne ci àddina buñ ko làmbee ci yow rek daj ko. dëgg la Abimou Mbaye xam na ne spécialisé mouridisme amul sesti mu génn ñu ne ko looy def mu ne mouridisme Pape Djibril bu tàmbalee di wax sénégalais yëpp dañuy defe ne daa am ku jël aw yat fas yéene caw réew mi te gone la ci sun biir as ngone su tuut la ci sun biir. gis nga ni muy def ak waa réew mi bu ci kanamee leneen dina ñëw loo xam ne ñoom abibu coono yi ñuy jànkoonteel te di ko junj te ñuy ay boroomi xel ndax ñu ngi leen di xatal di leen fitnaal ak a sonal ndax rek melo bi nu melo woone ay taalibey sëriñ bi lañ te duñ ci boole dara te sax du lu ñu incarné ak yooyu de dañ ko teyul teyuñu ko waaye leneen a ngi ñëw loo xam ne bu ñëwee kooka bu ko bu di wax ay coonoom day fekk mu màgget bi jaaw mu naan sama baay bu di xam naa lii muy wax nii boo demee muri di kañ lañ am ak ay rajo ki télé di wax rajo Sénégal bii sunu sang bu tedd ba waxul woon ñu yemale ko bu ak bu booba coono rek la ñu ngi fi ne xas te lii kanam mu jëm te fépp lañ koy waxee bu doon daa am ñu muy tontu ci wax sax waxul ak waa réew mii nag sëriñ bi daa am ñu def ay projet de vie universel mooy tey ñu ngi toll ci tubaab yi di wax nouvelle ordre mondiale am ñoo xam ne depuis 1516 jëm suuf ñu ngi bind ay téere ndax boroom xam-xam yi noonu lañu daan def boroom alal bu saay-saay mooy dikk jox la xaalis ne la càmbaral ma askan wi nu mel nga ne man de maa ngi gént ab dëkk boo xam ne mi ngi tudd Utopia wala wala la la nouvelle Atlantide wala lu nouveau Ciné wax ni dëkk boobay mel te dara du ca bokk ak li xew ci dëkk bi fekk danga bëgg a critiquer buur bi ak doxin wi ak doxalin wi te booba yahuud yi ñoo ko doon def xam nga jullit ñi jàngatuñu li alxuraan wax ne wa qaalatil yahudu laysati nasaara ala cheyin wa qaalatil nasaara laysati yahudu ala cheyin ci xeex lañ dëkk ñoom ñaar parce que kenn ku ne da ngaa jàpp ne sa morom newut ci dara sëñ Thierno daa mel ne ñoom gan gu yegg si léegi ci biir jataay bi waaw Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni tey ñu dalal ko euh, nee na daal li ñuy wax li ñuy wax ci kormut xaaral rek nga hmm? ñuy wax li daal mi ngi nii ci bunt bi di dugg si. waaw eh, ñu dalal ko. xam nga fi nga tolloon moom. baati na lool li tax mu dugg si. micro bi moom day dugg ci biir moo tax. Eh, ñu ñu dalal ko. Bamba yow yaa jar di xëy di gontu ba far dee yaa defal yàlla lépp lum santaane. Alaaji Serjo jërëjëf Mbacke. Eh, jërëjëf Serigne Touba. waaw jërëjëfe sëriñ Touba mooy dalal ko jëfe sëriñ Touba kenn mënu koo wax lu ko gën a ñor loolu jërëjëfe Serigne Touba. dégg nga sëñaam am ma ne Serigne bi buy waxit mu mel ni daa am ñu yëg ne da leen di tontu du ndax projet universel boo xam ne ña ko yëkkati. dañoo bëgg mu daj àdduna këpp ñi ko def fim toll nii ñu ngi sukkandiku ci téere yii ma lim te bañ ko tàmbalee ak léegi la cay farata ju jëkk mooy fexe ba génne yàlla ci dundinu nit ñi ak organisation àddina loolu moo jur lii tubaab yi di wax société secrète yi te mu sukkandiku ci ñaar benn bi mooy li ñuy wax vérité relative mooy ku ne jàpp ne sa dëgg dëgg la xam nga dañu daal di dàq vérité absolue ku ne day jàpp ne sa dëgg dëgg la ba ko ñaareel mooy fa yàlla nekkoon ci màggam nga tàmbalee ko ci preuve yi nga war a xam ne nekkuk yàlla bokk na ci li koy misaal li mu sàkk nga ne kon dafa am lu ñuy wax gaya mooy la la la la mère nature bu ñi seetaan film bi ñuy wax euh, Avatar xam nañu baatu gaya foofa ñooñ ak garab mooy seen yàlla te énergie yi ñuy dundee yépp fa lañ ko jëlee misaal la ci lii may wax ne mooy lem te ñooñu ci ay gox yu fasantikoo lañ nekk ci àddina di wax ci biir wax yee yépp mu daje une gouvernance mondiale une capitale une monnaie unique un peuple déraciné unifié parce que fekk demuñu ba aviliir nit ñi maanaam fexe ba nit amatul valeur abrutir leen fexe ba nit amatul i teggin du mën a am li ñu bëgg ci ñoom mooy nag màbb diine yépp ba ñu jeex bu gisoo programme mu télé yi li fiy xew ñëpp di ko jooy te kanam mu jëm mooy dinañu wane lu bon lu ne ndax valeur lañu ñu bëgg a dàq lu baax lañu ñu bëgg a dàq ñooñu nag ñu ci bari jamono yi ñuy gane àddina booba la mbër mi feeñ fii ci Touba mu ñëw moom ci boppam moom seexul Khadim sanc ab dëkk ne daara la Touba lu mu xumbu xumbu xumbu daara la te daara ngërëmul yàlla lees fay sàkku lu mu xumb xumb xumb ngërëmul yàlla lees fay sàkku sëriñ tubaa rekk moo wax ne kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla waxul ñëw leen ñu dem àjjana waxul kaay leen ma wan leen yoon wi ngeen di aw ba du ngeen dugg safara déedéet te xam nga lu mu ca teg am ab rawukaay laa asil laa asil rawukaay kon li ñuy dàq ku làquwul ci sëriñ tubaab mënoo wax ba du la jàpp doo yëg nag ni jàpp na la lu dul keroog bisub layoo ba bu doon wotoo taax murit du xar bisub layoo ba du woto du ay taax sëriñ bi lii mu woote mooy àgg ci yàlla moom rekk nag moo tolloog boroomam foo xam ni loo ko defal mu yéene la ca ngërëm nga amee ko ca te du yàqu foo toll yaa ngi dégg lu lu baax fu mu am dañ naan la boo moyee nangam yàqoo fa kenn yàqoowul ci sëñ Tuubaa dégg nga li mbër miy wax nee na sëñ bi alagul kenn lorul kenn li tax mu ne xam jami xal waraa daa jaar yàlla foofu amatul soxla ci mbindeef yi mu ne ko ñongoog yàlla ne ko ñu ngi noonu mu ne yàlla kon yërëm leen ba ci nasaraan yi def lu bon nga xam ni lu ne def nañ ko sëriñ bi sëriñ bi dane ñoom dañ leen a possédé iblis moo leen posede ba tax ñu def sëriñ bi liñ ko def ñoom nag rasulullaahee leen sempi wa annal muqaffa man xalaanee yar dahoo moo leen sempi teg leen aw yar ndax munta muñ ku bëggul sëriñ Touba billaahi ku bokk ak yonent bi dara di nga ko yéene sëriñ Touba fii kuñ fi woy sa mbokk nga kontaan ku bokk ak yonent bi dara di ko yéene lool sëriñ Touba lim ko woy gisoo jëmm ji ne jëre jërëjëfe sëriñ Touba nu jug yàggaayoo dañ koo tey nun bu dul woon sëriñ tubaa kenn du nu jiitu safara fii lañ mën a taxaw waat ci sëriñ Touba ne ku bokk ak nun sax du ko gis te ragaluñ ci dara ndax ngërëmul Serigne Saliou la ñu liggéey ba am ko. on s'en fout de ce que disent certaines personnes concerné wu ñu sëriñ bi rek lu waay di wax na doon sëriñ Touba lu waay wax lu dul sëriñ Touba bul ci tudd sëriñ bi amuñoo ak yow affaire waaye noo ngi fi rek ngir jëmmi sëriñ bi bëggaluñ kenn dara lu waay woote lum rëy rëy rëy demal ak moom foo xam ku wuy ji ku dul sëriñ Touba am nga coow te tuuti rek di ko xam. sëñ bi as woppa fi dikk soo xam ne kenn xamul ndax day màtte am day gàjjeem day dóore àddina sépp banque seeni yoxo te wopp ji du woppi yàlla ay nit a ko fi indi ndax daa dëppook seen programme lu ñuy wax une dictature sanitaire parce que dafa am ay projet yu taxawu ay passeport sanitaire ay nangam yooyu dafa am c'est factuel kenn mënu ko dindi mun Mountakha woote l'événement le seul et l'unique qui sera marqué en en deux mille muy màggalu Tuubaa gi moo billaahi dafa joxe ay garantie dafa ni dara du xew lépp lu mës a def gis nga deux cent millions yeeg lépp lu Sëriñ Muntaxa mës a def te maslaa ko ak nguur gi da leen a yërëm ci seen ñàkk xam lim doon ak lim man billaahi buñ ko bàyyi woon ak seen bopp dara du yëngu waaye xam na ne ñoom àttanuñu loolu. muy maslaa ak ñoom déggoo mu wax ni lenn li xelum doomu aadama ñoom seen xel lan yor di ko doxee moo tax mënuñoo ñàkk a maslaa ak ñoom bu ñu àggee ci bàyyi sun bopp ak Serigne Touba lépp baax falaa koy yemale euh, euh, waaw li ngay wax léegi la dugg jataay bi teewaayam bi ak melokaanam bi mu fi ëndaale ko xam xam ne du seetaantale dañuy seetaan nettali ko liy xew lii rek mën a tax mu xool télé ñu waxtaani sëñ Tuubaa ku bëgg sëñ Tuubaa gi ji dañuy def émission mu yónni ndaw ne ko toogal ci bunt bi ba xaar buñ noppee bopp yi doon wax yëpp terale naa leen nangam ba émission bi tàmbalee ba léegi ñun la àndal nekk ak ci loolu képp ku yëngu ci sëñ Tuubaa nag jàpp na ne lépp lu la war moom la war moom day bëgg sañ Tuubaa kem ni nit ki di bëgg sëñ Tuubaa moom bëgg nit kem nit ki di bëgg sëñ Tuubaa moo ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu téwér garaat bi nga takk ba boo génnee fii di dox balaa nga yëgg léegi fukki mètre mbooloo boo gesoo mu topp sëñ tubaa sëñ tubaa nga takk sëñ tubaa mi nga takk nag képp ku ko takk xam nga làmbooloo làmboo nga mbirum yàlla te képp ku jataayoo moom di nga xam ci moom bëgg sañ tubaa mu bëgg loolu nag alaaj mbakk yu fay